département bii di Mbacké nga xam ne ñun Touba la dëkk di ay doomi soxna dëkk ci dëkk bi euh, Sonko xëy na bëgguma ko woon tudd waaye dinaa ko tudd ndax bu ma ko tuddul kenn du xam li may wax bu yàggul dégg nañ ko wala gis nañ ko mu def benn déclaration wax ne moom candidat la 2024 waaye dafa xamul ne euh, candidat bala nga ko nekk danoo war a lijjanti say dossier ba mu leer naññ danoo war a lijjanti li nga def sa digganteeg Adji Sarr di interpréter justice nanu def projet ndax projet mooy tax askan wi xam li nëpp nit li dugg ci seen xel te lëmbe ko te xamuñu ku tooñ ak ku def loolu la ñuy interpellé justice mu ñëw nu fas yéene def li nga xam ne mooy projet ki tooñ nu xam ne kii moo tooñ ku tooñul nu xam ne tooñoo waaye man de li ma jàpp man ci sama xalaat Sonko waxtu wu a bu une déclaration dina ci indi ay menaces indi ci ne complot bo nga xolé ñu ci bari def nañ ay déclaration ku ci melné ne ak euh, ak ku ci melné euh Bougane Gueye mais vous ko defee waxul ne amna ay complot wayé pourquoi pas mom sa bu déclaration rek ay complot yu ci sunu nan nan ko xamal ministre intérieur Antoine John. Sonko bis bu bokkee ci élection 2024 yi nako ko élection du am Touba ci département bu Mbacké rawatina commune bu Touba. loolu nak ñun noo si jël sunu décision en tant que président mouvement MCS nek ci ginaaw président DG Ladjop nako na élection bu ci Sonko bokkee 2024 élection du am loolu nak ni ngi leen di xamal ne li tax li moy Sitor Ndour def na fi lii ca APR la bokk jël nañ ko tëj nañ ko kon nag réew mi dañoo war a tëddee njaaxaanaay justice dafa war a tëddee li mu war a def mooy nu am li nga xamante ni mooy procès ngir maanaam nu xam fan la wandeen di muddee ay bëtam te ñun jàpp nañ ne ñun moo def ak moo deful ñun day jàpp nañ ne ñun suñ ko doon lijjanti ba ca biir man de def gilaa gën a wóorlu ndax li tax mooy li wér te wér mooy nanu xam xel ne réew mii di Sénégal kenn mënu koo yor ci ay tappale kenn mënu koo yor ci ak tilim kenn mënu koo yor ci lu lu ñaaw kon nag ni ngi interprété di wax justice nanu woo nan def projet nu xam li nga xam ne moo xew te lii dafa jar Sénégal bu baax xam kan moo tooñ te jàpp nañ ne moom mënu fee nekk candidat ki tooñ nu xam ne kii moo tooñ ku tooñul nu xam ne tooñoo waaye man de li ma jàpp man ci sama xalaat Sonko waxtu wu nekk bu defee déclaration dina ci indi ay menaces indi ci ne complot te boo xolé ñu bari def nañ ay déclaration ku ci melné ak euh, euh, Bougane mais fait ko waxul complot pourquoi pas nous sa bu défé déclaration rek wax né ay complot yu nekk nan nan ko xamal ministre intérieur Antoine John Son bis bu bokké ci élection 2024 yi

kon nag réew mi dañoo war a tëddee njaaxaanaay justice dafa war a tëddee li mu war a def mooy nu am li nga xamante ni mooy procès ngir maanaam nu xam fan la wàndeen di muddee ay bëtam te ñun jàpp nañ ne ñun moo def ak moo deful ñun day jàpp nañ ne ñun suñ ko doon lijjanti ba ca biir man de def gilaa gën a wóorlu ndax li tax mooy li wér te wér mooy nanu xam xel ne réew mii di Sénégal kenn mënu koo yor ci ay tappale kenn mënu koo yor ci ak tilim kenn mënu koo yor ci lu lu ñaaw kon nag ni ngi interprété di wax justice nanu woo nan nanu def projet nu xam li nga xam ne moo xew te lii dafa jar Sénégal bu baax xam kan moo tooñ te jàpp nañ ne moom mënu fee nekk candidat